jotaay yi yu mat a bàyyi xel la jubluwaay yi wëccukaay yi lu mat a bàyyi xel ndax kat mbir mi du sottee fii waxuma kaay waxuma Dakar dendu suuf bi yi yàlla na rëy na rëy goo xam ne xeju fi moo waral di wàqi suuf di ñu fa denc kenn kenn ba nu yemb mu pare fa muy pare pare la muy pare jóg loolu nu wax ak nun yëf yi du sottee fii du sottee nii njàccaar la ñu jëm lu dara umpul te kenn du ko teggi kon ku fab sa bopp bàyyi koog ñépp bu kootul laa ma sa teeri fu la naqari te wax naa barki démb ba ne desantar bu juutoo juutoo juutu nga sol daal yor sax ba yàq ponkal mu bari doole ba max la bu la yàlla dimbaliwul sa ñedd laal suuf montagne bu juutoo juutoo juutu nga sol dàll yu rattax bayax ngam nda mu bari doole doxe la gannaaw bëmax la bu la yàlla dimbaliwul sëb ji suuf te àddina desaan sar la bakkan ak seytaane dàll yu rattax la iblis bari na doole ku ku keroog ba muy gonge kook yàlla seen ñaari baat ya ñu sànnente ku ne dëngalu bu fekkoon yàlla mën naa jublu fenn jëm feneen yàlla mënu jublu fenn mënu jox gannaaw fenn fépp la nekk ñépp la jox kanam waaye ma ne su meloo woon melow mën a dumóoyu ba mu waxanteeg saay-saay boobu mu dóor ko laamu xasmu borom bi tontu ko laamu xasmu ñu joxante ginnaaw kon lañuy wax ku ne dem imaamu xasaali bu mën a jàng bi am na ku ko ne ci critique foo dëggaloo ne yàllaa nga fépp ci ñépp mu ne ko ñaari taatoo mbéy mu xaatam arab bu ne la anta rek dangeen ngeen jàkkaarloo mu ne ko li tax ma xam ne yàllaa ngi fépp anti Moustapha yeeg guddi gi ñaan ak ant yunusa ga ci biir jën wa ca biir géej ga ca biir doj wa rasool bi mu demee ba bëtt pays yi ba ñu jeex mu dem ci limite bi mbindeef mën a yem jibril ma ko doon gunge amatul droit jàll taxaw di loxo mu ne ko doxal mu ne ko benn jeego rek bu ma ko yëkkatee tey leera aras lakk ma mën na yaanti mu ne ko afi misli haasa yutrikul qalilu qalilahu place bu dawee yaram nii rakloo ni xarit néeg na faa wacca xaritam te yaa ma indi ba fi mu ne ko amatuma droit dox wa ma minna illaa lahu maqaamun ma'luum wa inna lanaa musaafihuun wa inna lanaa mustabi'uun durwaate Moustapha Diallo ñu naan ko jegeñ sil naan Jibril reculeel arrière <laughs> illaa xaaba xaw si foofa sax am nañ fa benn am nañ fa benn am nañ fa benn ngëneel boo xam ne keroog la xew foofu ndax na nañu ba na bi doxee lu tolloog ay jéego dafa wàññeeku waaj ñëw ci jibril na ko comme fii nga sañ a yem te wóor na ma ne am nga soxla ci yàlla te maa ngi jàll luy sa yóbbante ma waxal la ko <laughs> allahu akbar mooy aynu rahmati rabbaniya waa joojoo yàqutatil mutaxaqiqatil xaayita bi markazil wuhumi wal maani nabi nuuru akwaanil mutakawinatil addami saahibil xaq rabbaani mooy addami di rabbaani mooy albarqil astaax fu mu ko defee bir mu zoonil arbaax ba mu sottee ba sa bët maali etan li mu mutaxaaraatim moo xam bu hóor nga yor wala awaar amula benn aaju boo bëgg ma waxal la ko jibril na ko ah kay boo demee neel borom bi maa ngi koy ñaan bu bés péncaa ba ñu gàcc siraat ci jaanama di oote nit ñi pour mu ñu jàlla mu may ma ma teg sama mbagg yi ci siraat sa xeet wépp dëgg ci jàll <laughs> bi yóbba bi yóbbante foor waay moo foor pour nun siraat ni mu mel ku am ku fa teeru ba jàllale la ma mosal leen ci tuuti sax jàll mu ngi sawee ni njarwañ njarwañ mooy kawari fas balaa maa dem sax ma wax la luy siraat siraat mooy firi pom foo fekk ñu pom nag foo fekk ñu pom fu ne fu naqaree jaar la ku fa jaar taq mbaa nga gaañu moo tax ñuy pom ku fa jaar taq laa wax mbaa nga gaañu salte baaxul gaañu baaxul looloo jur pom comme àjjanaa nga lee ca ginnaaw safara sunu borom tabaraka wa taala xam na ne doomu aadama yeewu na yeewu gu toll bari man-man gu ni ak watoom sax ëpp na ko ndax wasaa kursiyu samawaati wal aar te wala yuhuduhu irdahuma waaye ci nettali bu langale woon àjjana safara ñu rang ni quinze la ngeeg kon mën naa am buñ ci juuxee am ku ne yoxet na ci biir àjjana tarax mu fab àjjana sànni ca gannaaw fab safara ñuux nit ñi bu ñu dekkee safara li ñu jëkk àgg waaye nag mu teg ca pom ne yéeg leen ci jàll pom boobu ba sa tànk suruxee rek safara nga jëm te pom bi gàttul gàttul parce que junney kilomètre junney at la nga polame ci digg ba junnee at la nga door a descente yaawulit mu ngi sewee ni njarwaj dalul mu ngi yëngoo ni jaan ju ñu gaañ te deewagul moo gën a ñëw jaasi indi gën a lëndëm oxsat wa inna minkum illaa waariduhaa kaana alaa rabbika hatman ñi may dégg yéen lay waxal amul kenn yàllaay wax amul kenn koo xam ne mas ngaa won naa su suma wërsëg wii waroon na suma asamaan si dëgg si suma suuf si naan sama ndox mi te doo jéggi pom bi wa inna minkum ila waariduha kaana ala rabbika hatman maqdiya su ma ne na jil lazina saxaw wa naduru salimin fi abisia aaya boobu si da bi bakar siddiq bu mag bi mas naa takk di tukki dégg ko koy jàng muy lox ca fas wa ba daanu bañ ko yóbboo këram feebar na ko trois mois moo gaa yi loo xam ne yëg ko ba polémique junney at la desantar ba di junney at mu sewee ni kawari fas yëngoo ni jaan ju ñu gaañ gën a ñëw jaasi yi xind lëndëme ni ox set ba sa sànk rësati ko rek nga dem jaanama kooku kuñ ko tëkkoo jaar te këla ko tëkku di ku son ko fonke waxam mat naa xalaat foofu la jibril walanteeru ne dina tàllal ay mbaggam ngeen yéeg ci astafurlaa nu yéeg ci boo <laughs> ba jàll waaw xasaal yi ñu ne ko lu tax nga ne yàllaa ngi fépp benn waay bu mën a jàng benn waay daf ko laaj ne yàlla nag ma mën a misaale jegeñ gu mu jegeñ jaamam mu ne ko faxasal sa tënk mu faxas tënk ba mu ne ko dara taxu ci mu ne mu ne ko taf ko ci sa jë mu taf ko ci yow mu ne ko mu nekk mu ne bu baax laa wax waa ji nekk bu baax mu ne ko bu foor mu nekk bu foor mu ne ko yàlla ngi ci diggante bi sa tënk beeg sa jë bi yàlla ngi ci diggante bi <laughs> wa aqrabu mu ne ante yoonu sa ak anti Moustapha sore jamono ga ñu sore jamono ak sore place ga ñuy wax sore place moo ma ne yàllaa nga fépp na bee nga waxee loolu ca arsh la asna sana aleyka anta ba mu jéggee arsh la ko yàlla sànni ci xel mi ni mu ko war a nuyoo def ci xel mi attahiyatu lillahi mooy taaye bi sakkiyatu lay tijjibaatu salawaatu lillahi loolu la nabi nuyoo yàlla keroog na fekk tahiyaatu lillah fakkiyaatu lillah tijjibaatu salawaatu lillahi na fekk yàlla ni ko asalaamu aleyka aywa nabi wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi doon seetaan bi yëpp ne asalaamu aleyna nu nit wa ala ibadillahi saalihin <coughs> bii gan gee wax bi ku ñu gane ki ki surga moo tax bari na lu ñu jëfandikoo ci lislaam bi te la ko fent mu ne nañ ko ci bàyyi di ko employé yaale ndax dox na ku ci xëy wax ko juróomi yoon ci nun anta jënn bi wax ante mooy firi yow bu dee arab da nga jàkkaarloog borom taatombe jooju dafa am tur ñu ngi koy tuddee taatombay waxante ki ngay waxanteel ne benn ci aras di wax yàlla yow yunusa am njuumte njuumte li mooy yàkkamti dogali yàlla waar na ñi ko yónni ci ñoom ñu dëgër bopp mu tëkku leen yàlla fekk si ko ca tëkku ga am ci ñoom ñu yeewu yëg ne def nañu motif ñu jàmm ñu baalu ji yàlla avant ñu baalu ji yàlla suñ borom yebal na malaayika mu yëgal ci yuunusa ne ko li nga ma ñaan dinaa ko def mooy neyanti réew mi yaa ku gëm gën leen suñ borom daan def nag balaa ala gëm réew génne yonent bi fasri bi ba di leylan innakum muttabi'un yaa ku la gëm génn leen mu ànd ak njaboot gi génn ca nelaw yu jëkk di daw ba fajar di xaar muy nelaw guddi ga mu nelaw ba bëccëg ba ngir sonn njaboot gi tëdd ci wetam ñu nelaw mu ngi ànd ak jabar ak parental ak kuy bootu ba ñu nelawee ba mu naaj mu jóg ñoqali daw ba une mu yendal an ci ëllëg sa nag saay-saay bi ñu wax iblis yàlla ñu yàlla musal ci moom soppeeku nit fekk ko fa nuyonteeg moom ne ko góor gi bokki fan mu tudda dëkk ba ne ko nuyu na viyu laa jóge mu ne ko nu mënu la nekk Yunus ne ko mënu la nekk boobu dëkk waratu la doon dëkk ba néegi kañ nga fa jógee mu ne ko falaaxee mu ne ko mënatu la nekk Yunus mu wax Iblis ne ko dëkk booba résisté tul war naa alaku barki biig ca fajar te la yàlla waxante woon na moom Iblis xamu xamal ko ne maa Iblis mu ne ko ah dëkk baa nga fa am ah. ne ko mënu la nekk laa wax. iblis dal ko ne mbaadu fen yi yuulu sa fen moo la jumloo xama fu mu ne waaye bu xama fu mu ne waaye waaye bu delluwaatoon dëkk ba xam ne gor du fen de dama waxoon yëpp dara du ci dëgg dëkk baa ngi ci xiiwal gu rëy a rëy ñu ngi ca jàmm ah kooku daal doon affaire ci yunu sa mu ne man de mënatuma dellu gor gu toll ni man yàlla yónni ma ma wax ak nit ñi la ma wax dañe noona ñëpp yëg ko noonu dootuma dellu continué nag dog tefes gi seen genn gaal kiir yi ko gaal ga langaan mu dugg ci ak njaboot gi gaal gi dox dox dox dox daal ngelaw a koy doxal mbaa machine képp koo xam ne da nga gëdd sa waajur mbaa nga manqué ko mbaa sa sang mbaa sa jëkkër ca yooyu jamono baa dinay neex nga xam ne bàkkaar day xasaw ni ginnaaw kër di xasawe ba tey xet goo nga xet googaa googu bàkkaar daan xasaw gata ngi fi waaye bakkan yee miis bakkan yee ko miis booy door dugg duus di am lu la xeeñ waaye boo fa yàggee dara dootu la xeeñ fekk mu ngay xeeñe ni nag yaa fa yàgg juum naa sax ne xeeñ waaw kañ safaane xeeñ mënuma ko wax ndax dafa këfin lu baat bu neex wax waaye xeeñ mooy loo xam ne <coughs> bu agsee nga bëgg mu dolliwaat safaanam nag gaal gi liis wandaalu capitaine bi def ay moyens gal ga toppi mu ne attention ku tooñoon ci biir gaal gi nañ ko jéem a seetal suñu bopp buñ ko turwee yeew ko sànni ci géej moo gën yàq suñu wayaat ñu def nañ daan def ba xam ku tooñ loola dal ci yunusa mu ne nag naqar wi ma am ci waxanteeg ñu ma tooñoon diggu leen diggu ga nax saay ma dugg ci mbooloo mii nar a weeru du ma fi fekk ne sër na ci biir géej dagaj yàlla nag ne jën ba wannal ma ko ba mu xam ne yorul dogal bu ko màtt nag du sa wërsëg bu ko lekk kaso la rek pour yow fa laa annahu kaana min almusabbihiina la labisa fi batnihi illa yawma yub'athuun fa nabasnaahu bi araahi wa huwa saqiim وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلا بهة ألف أو يشدون فآمنوا فمتعناهم إلى عين jën ko mu dugg ci biir ji baljat ya yàlla tereet géej gi jën wa na saaw mu xotti wenn xeer jën wa na carax ci biir xeer moo tax mu fanaa nañ ko bul yàgg li yàgg naan mu ngay oote ca lëndëm ya ndax jëm amu ënn salim la ca lëndëm yëpp la yàlla làkk ñu ne nag ba ko jën wa wannee weneen jën ko wan na weneen jën ko wan na muy ñetti jën moo tax yàlla ne mu nga may oo walla ca lëndëm yë si daal di Maalik mi jëkk yër bayaan fii moo tett nit ñi ne mën naa doon wenn jën te yàlla làkk lëndëm yë bisimilaay bokk mën naa làkk fanaadaa fi sulumaati mu nga may oowal la ca lëndëm ya te mu diwee ni jën ñu ne alaaji maa na muy mën a nekk mu ne jama ci naxwu ak jama ci fiq bokkul mbooloo bu dee fiq ñaar la wal jamaatu isnaani fa saahida ñaar bu ñu wetee julli rek am na ñu ngë ngëneeli mbooloo bu dee fiq atte fiq mais bu dee atte calcul ak grammaire foog ñu mat trois ndax tas nii li samay tax moo fa daat tas nii jam a door a ñëw kon nag bu yàlla làkkee ne mu ngi may wala ci yëpp te jën jën wi di benn tax ngeen ne jën wa jën daf ko war na jën war na ko mën naa doon wenn jën te mu làkk lëndëm ya ñu ne Maodo na muy amee mu ne ndex mi lëndëm la xeer wi lëndëm la biiru jën bi di lëndëm kon naa daa fi sulumaati an laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu waaw kañ ne dee nga naan yàlla ca arsa anta Yunus di ko wax ca biir xeer wa ca biir jën wa ca giir géej ga anta mu ne ñaari anta yooyoo ma xamal ne buur baa ngi fu ne ndax kële mënoon naa wax moom moom daal muy buur wala kële ne moom daal mooy buur kii ci jiiri ji kañ buy wax ak kii naan ko yow ki ci biir géej di wax ak moom naan ko yow ki ci suuf di wax ak moom naan ko yow ki ci asamaan di wax ak moom naan ko yow looloo ma xamal ne mu nga fépp antine bi jële mu ne laas naa sanaa alayka anta ak laa ilaha illa anta subhanaka jële ci laa xame ne Mawlaana tabaaraka wa taala ngi fépp ma ne nag yëf yi sottewul fii du sottee ci ñii mënu la nekk wa yasaluunaka anil jibbaali xuul yansufhaa rabbi nasfan fa yazaruhaa qaa'an safsafaa laa taraa fiihaa iwajan wa laa amtaa daa mos a bëmax benn nen ca dama ko muy bërëngu ba Dakar dara du ko dogale déedéet du genn gajj du wenn ñax du mennam taax du benn décentre du kenn nit du benn pax kara bàyyi boobu yàlla ne ko xam naa dañ la laaj montagne yi ak décentre yi fu mu ne keroog buñ la laaj laajee neel maay ngadd xeer yu rëy yi ñu daanu ci pax yi maaraasale leen ba mu de benn nit wa yasalunaka ani jibaali qul yansufuha rabbi nasfan fa yasuraha qaan saf safa laa tara fiihaa iwajan wa laa amta Moustapha mii leen tax a fanaan fii tax nu fee fanaan moo fekk Yunusa ca biir jën wa wallu ko daan naa wax ni général bu motivé motif bu tax ñu dégraté ko nangu koor bi mu yoroon ak commandement ba tëj ko ma moromi généralam di làkk ba ñu tijj ko muy làkk ba ñu delloo ko garaat muy làkk ba ñu joxaat ko commandement ba mu doxal ko général bu mënee leen loolu naw la général am deuxième kanuñu bu ne ci quartier du ko jaax maa ngi ci actualité bi bu ma demee ci film bi rikk waay gaay yi ku fi indi woon lu fi nar a des fexeel bu bul ñibbi di ko yóbbu yaa di mooy naa dal am na na ay garantie yu jóge ci rasulullahi naa leen léegi benn bu jóge ci jibril alayhi salaatu wasalaam am nañu garantie yu jóge ci mawlaana tabaraka wa taala ak yoo xam ne ulamaaw yu baax yi di fuqaahu ko bindal bii may bëgg wax ci la dama ne général ku kawe garaat la bu defee motif bu tax ñu dégradé ko arrêté ko ak ah, nii ne commandement am général ni moom di làkk di làkk ba ñu ne ko ci jëkk biir kaso ba muy làkk ba ñu sëfar ko garaat ya muy làkk ba ñu delluwaat ko service ba ma ne général bi mën a loolu nawlab général am deuxième kanuñi deuxième classe bu ne ci quartier am du ko jaaxal ñun deuxième classe lañu ci quartier Rasulullah waaye trois cent treize yëpp ay général lañu ku ci ne motivé nga nag maam aadama mi nga xam ne moo jur ñëpp moo jëkk a def motif téere nañu sax li tax yàlla seetaan aadama ba mu tooñ ko mooy da doon joxe exemple ndax bu fi nekkoon ba jóg fi tooñ ko ku tooñ yàlla doo xam nooy def ba mu baal la waaye moo fi jëkk mu fexe ba mu jëkk koo tooñ wan ko ne nuy baaloo ko tooñaat jaar fa ñu baal yonte yàlla Muhammad doo wax ak yàlla ba mu baal waa jii ma di la bëgg wax di yonte yàlla Yunusa footam ba ci géej gi xurwa na gën nekk leer fekk ko def ilhamul illaa yi ci xal looy def fii dama def nangam ak nangam moo tax ñu tëj ma fii xanaa xamula nangam ak nangam akasa euh, alxasan gàgganti na ma si daaj maa ni dafa wax ci xila ci euh, nuuniye bi ne bii ta yaay bii tata illahu allah yaay bii tata yaay yaay به تابل مودن به تابل مودن ينن به تابل الله على الأبي مودن به تابل مودن ينن به تابل يهي ينن به تابل يمن به زونون قد مدن يمن به بزرون يها يمن به قالل مدن به يا غبم يها يمن به لوطن يها يمن به عسل موطن به زور جوبي جم جول مكة به زور فلك موطن به موسى جول مكة به زور ملك موطن به ملنا موطن دائل أدانا موطن أنيلوما موطن مودنا إذ الإيجاد مودنا نبينا بزنة مودنا رقى فوق يهينا ودعنا الله مودنا وفي الإسرائيل مودنا رأى المولى مودنا علينا الحمد Maodo nee na baax na la Maodo nee ba na Amadou Maodo gazali ale Maodo nee na bii yu ma gaana Maodo nee ba jaane na qabala Maodo nee atawala gobro yehe ينن بقاد الكل جول مكة وسيلتنا ديننا تبين رشدنا موتنا دها من لم يجد موتنا فمؤتمر لا يقال موتنا على المغتار ميننا ولم يغتر سيدنا وقل هادي مودنا وبالإرسال مودنا وقل قريشا مودنا وصدق القول جل مكاس فيهن سبوة مودنا هدى يا دي المدينة مودنا وفي حجر مودني فساك الحكم في الخير مودني لهادينا مودني به داب مودني به ظنوني مودني به داب يا هي به داب مودني به داب مودني به داب مودنا به تعبنا مودنا به تعبنا إلى ولا أبي مودنا به زنون يلا بعدنا مودنا به بيسرون يا ولا جل ما به غالنا يا معركم مودنا به الركي موضنا به نرنا ونذكر كل دين يا به باب الإله على أبينا به صنون دايا لبادنا waaw kay Sidi Assane jazakallahu xayran bari yu si daxaaj lim léegi bi xale yi way di bihi bihi yooyu bu ci ne dafa am lu muy firi defe naa bii taabal ila bi naa jiitu lu ci tegu wa kañ boobu la ma Sidi Xasan fàttali maam Adama alayhi salaatu wassalaam sallallahu alayhi na ne bi jaayi Muhammad alsaxeer googu ci nabi la dellu arafu jar woowu moom la jar bihi bi barakati rasulillahi taabal illahu ala abina bu ñuy woy nga defar waxuma bi nga juddóog léegi sax par jour par jour ñaata tere góor gu sell googu genn ak tere rek la def genn ak tere ñu déq ñu dàq ko futti ko futti ko ba mu def yaramu nen na mu juddoo woon ñu wàcce ko iblis genn ak santaane rek la bañ genn ak santaane rek la bañ ñaata santaane nga gàntu par jour laay wax de gantu genn santaaneem googoo ko jural fa innaka rajim wa inna alayka laanati illa yowm alqiyama xamme ngeen defuk tere ak gantum santaane ku bari lu mu dépensé l'islam la ci tariqa garab gi bu ko laal ah Adama àjjanaa nga fu la neex indul fu la neex fanaanal ñett yi fa gën a bon ku gaañu moo la gaañ xër kañaan rëy moo àjjana ni mu yaaye ku gorul yettul ñu xëy na duggal fu la neex lekk fu la neex fanaanal fu la neex waaye bàyyi fi genn garab gii